barke borom Touba kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax mel ni ñoo ngi fi nag ci kër Serigne Touba gi wala kër xasida gi nga xam ne nii fédération de daayira bu itali ñoo ko moom te ji nag ñuy teg xeeru daara ju am solo joo xam ne nii daaray alxuraan la ci teewaayu Serigne Xabaan Mbàkke moom Serigne Fallou moom mi nga xam ne naka jekk yàgg naa ànd ak ñoom waaye ni ngeen ko gisee nii euh, kuréel yi bàyyeekoo nañ fu nekk ci euh, fii ci dëkk bi ñëpp nag ñu doon liggéeyal Serigne Touba foofee ca Italie ñëw ko jës bu euh, njàngum alxuraan mi ci dongo yi nga xam ne jot nañ fee jàng gis ngeen jamono yi nag ñu ngi waaj a teg xeer wi ci teewaayu Serigne euh, Xaban ak ndaw li nga xam ne nii moom la mun Muntaxa yebal suñ paree nag door a ànd ak ñoom dem ziare ji nga xam ne nii moo di mun taxa waaye kër gi nga xam ne nii moo di këru xasida yi di kër goo xam ne nii mu ngi fii ci Ndindi waa Italie moom ko di kër goo xam ne nii itam fas nañ fi yéene def yi daaray alxuraanul karim ak foo xam ne dañ fay jànge xasida lépp nag tàbbal ko ci cadre liggéeyal Serigne Touba Cheikhoul Khadim lépp ñi ko def nag muy mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñoo nekk foofee ca Italie di fa liggéeyal Serigne Touba Cheikhoul Khadim kon jamono yi ñuy wax ak yéen euh, sëñ bi mu ngi ñëw ngir tax xeer wi Mouride TV ànd ci ak yéen fii ci Touba Ndindi dugg na ci ab noppam yëg na ko itam nii mu demee leeralal naa ko nii mu ba mu joxe ci ndigal rafetlu ko lool wane ne it lii ab tàmbale ci liggéey ba nga xam ne moom lay sëriñ parce que yéen defal sëñ Tuubaa ndax ku ne xam na ne bu foofa lañ ci jublu mooy mu doon barab bu mag boo xam ne fu waay mën a génn ci barab yu mel nii ci daara yu mel nii bu boobaa nga mën faa ñëw la nga fa soxla nga mën ko faa àggale koo xam ne jóge woon nga ci bitim réew sax boo dikkee foofu nga mën ko faa gën mhm. kon loolu na ci noppam mhm. moom itam mi ci sant bu baax ñu mhm. ngi leen ci gërëm bu baax tam ñu ngi leen di ñaanal itam suñ boroom yeggale ko ñii ngeen ànd ak seen bi sëriñ Mouhamadou Xabbal tàmbali ko nee na yàlla na ko yàlla àggale noonu ci barke sëriñ Touba ba yéen ñëpp ñëpp julli yëpp man koo jëriñoo taalib bi yëpp man koo jëriñoo seen njabootu njabootu bokk bopp bokk ci taalibe yooyee ak jullit ñooñu koy jëriñoo mm. di ñaan itam mépp noo xam ne jàngu mel na ni wala ab jàngu tol na ni yàlla àggale ko foofa ci barke Sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bu nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sayidina Muhammad salaa salaam sant Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi santaar sunu borom ci tawfiq ji ñu am ci fas yéene ànd ak waa diaspora bi fii nga xam ne mooy Touba Ndindi ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni liggéey la boo xam ne bu ngeen xoolee di ngeen xam ne tàmbale woon nañ ko bu yàgg te mbooleem diaspora bi ñëpp ñi yëngu ci bisu xasida yi bokk ko muy kër goo xam ni ñi nga am tawfiq ci sëriñ xabaanum sëriñ Mouhamadou Fadal moom sëriñ Touba mu joxoon leen ko ñu def ko këru xasida doon kër goo xam ne dañ fay taxawal daara. mu mel ni liggéey bi mënuñoo tudd liggéey bi te tudduñu euh, kuréelu xasida yi kon kuréelu xasida yi ñu ngi sosu woon 2004 ci ndigalu Serigne Saliou Mbacké di ñaan sunu borom yàggal ko fi ak ci taxawaayu Serigne Serif Mbacké kon foofu la tàmbalee woon biñ ci doxal nag at mu nekk ñu dem ci benn barab def fa bisu xasida ba asamaan set ba ñu àgg ci 2008 sëñ Mouhamadou Xabaan mii am barab bu mu dem ñu tagal ko kaset yooyu mu koy xool. laajte waaw ñii fan la ak ñan lañu ñu xamal ko ne ko ñii de waa itali la ñoroon def lu mel ni fu ñu ko doon def mu ne ko fii mu ne may naa leen ñeenti pàkk ca Ndindi ñu def ko ko xasida muy kër gi tey nga xam ne loola 2008 la woon ba ma yàlla dogalee ñu ñëw fii tamit ci màggal gét topp ci bis ci at moomu ñu jébbal ñu kayit yi yëpp ñu ñëw fii xool si ko ànd ak lenn ci mbokki taalibe yi ñu wàll waxtaan ci suñu biir daal di am pas-pasu ni mu ñu ko joxee ñu am pas-pasu liggéey ci suñ kent lay kattan ba tax na ñu yàlla koy miiree biñ ko miire ba àggal tam ñu xam ne Serigne tubaa lu mu am ci alxuraan la ko am ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kon liggéey bu mu mën a doon nañ ci tàmbalee njàngum alxuraan ñu yàlla fi ubbi daaree alxuraan yoo xam ne lu mat ñaari téeméeri ndongo ak fukk ak juróom ñu ngi fi di jàng te it lay loo ca ña nga xam ne si ñoo leen di jàngal ñun diaspora bi ñoo koy def weer wu dee ñu ne la diggante ak ñoom ñu yëkkati ko jox leen yóbbu ko ci seen kër nga xam ne dongo yi jàng si rek moo leen war seen i tamit la ci war rek mooy saytu leen ndax bés bu nañu ñu ngi jàng si wala déet ak seetal barab bi kon loolu mooy li nga xam ne mooy njaal beenu daara ji. kon moom it dañuy jox Serigne Saliou Ndiaye rek moom it mu andil nu maanaam euh, li tax ñu sant barab bi. rawatina moom mi nga xam ne mooy commission culturelle bi waaye naka la ñu dundale barab bi ci njàngaleem alquran ak njàngaleem xam-xam ci eh, te nga xam ne loolu bokk na ci li nga xam ne sëriñ bi da koo ñaanal fii ci dëkk bi. baax di am mbégte lool ci laaj bi nga xam ne laaj ñu ko euh, lan mooy sabab bi ak lan moo tax ñu def ko ak commission culturelle lan mooy liggéeyam ci wàllu euh, li nga xam ne mooy diaspora bi ci wàllu xasida yi day mbooloo moo xam ne seen yitte eh, lenn rek la muy bëgg-bëgg sëriñ baax te ñu xam ne Serigne Touba li mu am lépp mi ngi ko am ci xaside yi ndax karaamatu xat yi yooju moo xoon te mu wax na li mu am lépp mi ci xaside yi ci liggéey yore sallallahu sallam ak alxuraanu karim ñu gis ne nag liggéey yëpp baax nañ ci liggéey Serigne Touba waaye ñu jël sunu matt nag di ci liggéeyal Serigne Touba ci xaside yi ne xaside yi ba koy def mooy tagg ya tagg sunu borom sant ko ak ñaan ko ak di julli ci yonte bi ak di tagg tagg yoon bi ay jikkoom ak i melokaanam yooyu rek moo doon mooy mooy dëmmi xaside yi ñu xam ne nag loolu ku koy def bëgg ñu jàng ko moo tax ñu def ko moo tax ñu dajaloo di yëkkati xasida sax su nekk di wut benn bis boo xam ne bisu xasida lañ ko tuddee di ca jàng xasida ak demee ko noonu waaye ñu ne rek loolu duyut ndax sëriñ Tuubaa léppam alxuraan la woon ndax Tuubaa Mbàkke gi bi nga koy sanc yi euh, lan rek moo tax mu sant ko mooy jaamu fi yàlla ñëw fi dafi jàngal alxuraan loolu moo doon sabab bi waaye suñ borom te kom nattu ba tax na loolu mbëgg mënu ko am ñu xam ne itam jëpp moo doon alxuraanu karim moo xam ne suñ borom ne moom loolu na ma malakanil qur'anu tamlika yaddum ñu xam na ne comme suñu tubaab moom alxuraan te ñun ñoo moom moom xasida yi ñu koy liggéey xasida yi kon liggéey ba gën a war nag mooy ñu jar ci alxuraanu karim liggéey suñu tubaab ànd xasida yi ndax tuuma yi dafa bari lool ci jàngkatu xasida yi ñu wax ne duñ jàng alxuraan wala xasida yi rek xam na lool nag ku gis li da nga xam ne loolu wax jàqu la ndax fee ci bitim réew day lañ fay jàng ci xasida alxuraan yaakaar naa ne Sénégal gi jànguñu ko fi ndax bisu xasida bi bu ñëwee dañ fi jàng lu ma ay junni kaamil yoo xam ne lépp dañ ko def addi Sëriñ waaye rawatina ay bés ay bés bu ñu nekk danañ jàng ñeenti kaamil yoo xam ne dañ ko jagle Serigne Touba ci biir loolu it ñu xam ne kon liggéey bi dëgg dëgg dëgg mooy ñu fexe ba ndaw ñi jàng alxuraan ni ko Serigne Touba bëggoon mokkal ko ndax Serigne Touba waxoon ne ndaw lu war a mokkal alxuraan te mokku la ne dara adduna jëru ko ñu xam ne ne kon responsabilité nag ñu ne kon nañ jël suñu liggéey jëmale ko ci alxuraan ak xaside yi loolu moo war kon daal xaside moom moo jur moo jur alxuraan këru ko Euh, kuréelkat yi xasida yi dem wut kër goo xam ne dañ koy defal alxuraan loolu jàpp naa mbégtam sëñ Tuubaa la doon waaye mbégtam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Goodbye. étudiant dañ taxawal foofee ca Italie bis yàlla def ginnaaw xasida yi moom xam nañ ne mooy alali Sëriñ Tuubaa te gis nañ ne it am nañ taw feex ndax fonk gi nga xam ne fonk nga ko ñoom ñi nga gis tam wóor leen xasida rek moo leen boole ndax ku ci ne am nga sëriñ boo xam ne ci moom ngay soyee muy sa biir sa buntu Sëriñ Tuubaa te da ngay def foofu ñoom ñëpp la xam ne moo leen war ci seen kër sëriñ am nañu itam daayira yi ñu nekkal ci Italie ca kër seen kilifa itam ñi ci gën a bari ci njiit daayira lañ bokk ci kër seen kilifa waaye bis bi nag ak mbootaay gii moom dara la war a lutul weesu góor la xes rek loolu nag doon loo xam ne natt te duwuñ ne lu lay bëgg loolu lay doon ndax xam leen ni fi la xasida toll fi la sëriñ bi toll mbooloo la moo xam ne it yàlla def na ci ñoom tawfeex seen yitti jëpp ci sëriñ boole seen bopp lañu itam tey loolu ñuy def itam ñor na leen lool ba boolewuñ ci dara ginnaaw nag yàlla def na xasida yi rek moo leen boole mooy seen wëllale kóllëre la koo xam ne defe naa ne kenn ku nekk ci ab jullit wala ab taalibe mën naa rafet jot si ñoom bi ñu ko taxawalee te nga ñëw ñu métti itam defe nañ ko ni ñu ko daan defee defee ba gën a rafet te gën a sell boolewuñ ci dara loo xam ne bokk ci bañ demee itam te bis ba ngir xam diggante Sëriñ Tuubaa ak alquran tax na. dajale nañ fa ak njaboot bu toll ci jàngal xuraan mokkal ko ak bind kaamil ñu bind fa benn kaamil boo xam ne ca bis boobee lañ ko tàmbali ci lañ ko mottali kaamil ba itam la teewoon ma àndaale ko mooy ñu woon di doon ko xool bëgg koo topp bëgg ko gën a setal waaye nag def nañ ko ba noppi ba set na mel na na war a mel ziar bu baax te di la sant te di gërëm te di la ñaanal suñu fekk suñu borom leen te aaral leen seen i pastéef ba dara bañ caa jaxasoo jërëjëf loolu dégg lu baax sëñ Saal di sëñ Saal di bisimilah jox ko. sëñ Saal asalaamaaleykum wa rahmatullahi sëriñ bi ñu lay nuyu di la siyaar ci turu mbooloo mii ñu jiite ñi fi jot a teew ak ñi ñu teewal ci njiitul nag sa mbokki bopp yi ñu àndal mu sëriñ Moustapha Mbacke mii di imam ci Touba Milano sëriñ maam Thierno Mbacke mii di njaboot sëñ Abbas te nekk ci Espagne ak sëriñ Mahamadan Mbàkke nga xam ne moom it jotul la teew ci barab bi waaye xolam mi ngi fi ak keneen ku ñuy wax sëriñ Fallou Mbàkke ak mbooleem njaboot sëriñ Tuubaa ak nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ko ca barab boobu ñu nekk ñu teete ñu wan ñu yoon wi sagal ñu dimbali nu itam ñu ngi lay nuyu gis seen tur ñoom ñëpp ak mboolem soxna yi nga xam ne ànd nañ liggéey bi ni ko sëriñ maam Thierno ñu wax itam moom it ñu ngi koy sant bu wér di ñaan nga ñaanalal ñu ko ba li nga koy liggéeyloo sunu boroom yombalal ko ba mu ko defee ko ni nga ko bëggee te mu yàgg fi lool ndax jàpp nañu sagal nañu te sutural nañu te teete nañu ginnaaw loolu itam liggéey bii jamono yi ñu fi ñëw ca gannaaw am na daara alxuraan yoo xam ni nësaroon nañ ko. ba tambali won fa jangale lu nyari ñaari at ak lu top ba lu mat ñaari témiri ndong ak lu top nekkon fa ba tay ji ñoko fa tay ji it demoon nañ ngir tek xeer bu ñëk wi ngir si yene def ko muy daara alquran ak këru ko xasida ndax serigne mohammed Xabaane min ko joxoon dafa waxoon def leen ko këru qasida ñu xamni nak serigne touba alquran mo jitt fi léppam ba tax nañu ñëk fa tambalé jangale alquran waye lepp lañ fa nissal difa yar ay tuut tank ci diine ci lislaam ak taalibe fii ci ndindi ci ndindi waaw fii ci ndindi waaw teg nañ xeer tey ci suba ci sëriñ ci njiitu sëriñ Modou sëriñ Xaban ak mbokkam yii mu àndal ñu ngi lay ñaanal sunu borom yàggal la fi te wéral la te kartanal la ba lépp li nga yéene ci sa yoonu liggéeyu maam bii nga def ko noo ko bëggee te ànd ko dong yëpp eh, duma guddal nag ginnaaw dañoo ànd ak serigne mam maam non mom mu sànni ci ay cadeau rek mom serigne Abbas mom serigne Abbas bismillah mu tënk kàddu mu gaaw tuuti jotaay bi jërëjëf Mbàkke ñoo ngi siar baax baax ci youtube ci cadeau yi ndax bi sëriñ maam Thierno yëkkatee rek man nañu dugg ci biir waye mbacké ñoo ngi lay seeral né murit yi ñu andal ñu gëm serigne touba lan te bëgg ko ca nekk ci liggéey bi waaye nag santaat nañ yàlla bu baax a baax ci tawfeex ji na am ba jataay ak yow ndax joxe sëñ Touba ab kaamil moom yéemut kenn waaye bindee ko fan ko binde muy Italie ku dul Ahmadul Xadim amoo ko sëñ Touba képp ko am mbàkki moo tax ñoo ngi gën a nekk rek di wut ngërëmul sëñ Touba ca jàpp ne buñ ko wutee ci xasiiday sëñ Touba yi mën nañ koo am bu baax a baax kër googee bëgg gin ci bëgg liggéeyal ndax xasiiday sëñ touba yi ñi ngi defaral alxuraan kër moom kër yépp baax waaye sëñ touba moom moom rek moo am lool nga xam lu ci ne ci mbiram da cay wéet kenn du ko ca fekk ca bindal na ko boppam ukun li yet wukun ukun mahi ukun li shaykhan fawqa xamaraam bi kun li feeg yàllaa ngi fi di fi nekkal sëñ touba loolu nag Mbàkke ñoo ngi tuub ci suñu kaddu yi ñu yëkkati sax ngir sa jëmm dafa demee bi sëriñ ko sa waxee di maam cerno ñu mën nanoo jugg ci biir ndax ñaari cerno mu amut menn rek la waaye tawfeex ju nu am daal mooy sa jataay bi doy nanu sëkk kon yàlla nanu sëriñ tuubaa gën a dimbale rek ñu nekk ci lii ndax mooy ak ak bëggam amuñu lenn ndax danoo mës a tekki dara ñun nit ñu ñun ñi dara lañ mës a tekki dara mësuñu ko tekki ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi ñuy wax bilaa la ko solool sax mësuñoo dégg ñu ne bilaa ko solool dara lañ mës a tekki bi sëñ Touba demee ci gànnaar dégg ngeen ko tubaab yi sax bi biñ ko fay yóbbu xam ne tekkiwun dara tax ñu yóbbu ko fa waa day maa nag ansaar ñi gënoon a dëgër bopp lu ci moom kon jërëjëf Serigne Touba rek bañu guddal kat addiya jaa ngi nii lii nag sunu la xëy mi day Serigne Touba fa nekk ca la bokk ñoom la def ñu xëy ca loola la C'est en là, c'est en là. jërë ngeen jëf sëriñ bi nee na alhamdulilah sëriñ bi nee na am na lu ko sëriñ Thierno mi jot a wax sax ci taxawaay bi mais ba mu ko ko waxee moom sëriñ Thierno nettali na ko lépp nee na loolu dégg ga réy na ci moom lool nee na loolu sëriñ Thierno waxoon ko xolam seddoon na ci guy yi nee na xelam it gën na caa dal lool mu ne sëriñ bi nee ngeen xam ne seen jataay bii mu ne ngeen xam ne seen jataay bii mës sa toog jataay bu ko gën a neexee ni jataay bii mu ne du du ko toog ak beneen jataay budul jataay bii wala bu bu. mu ne bànneex bi ñu ci yëg ak bi ñu ci am ci lii rek la ko mën a amee. mu ne kon de yéen xam na ne borom tawféex gu rëy ngeen. borom tawféex yu rëy ngeen. mu ne ndax xasaadi xasaayid yi mooy suñu xaas mu ne day faral di wax ne ku bëgg a jege sëriñ bi na ngay fonk xaside yi ku bëgg ngërëmal sëriñ Tuubaa yomb la na ngay fonk xaside yi ne te xaside yi koo xam ne dangaa bëgg a gise ak sëriñ Tuubaa wala nga bëgg koo xam wala nga bëgg koo liggéeyal xasida yi moo jiitu ci lépp mu ne xasida yi moom mooy jëmmi sëriñ bi ndax xasida yi moo dox digganteem ak boromam ak digganteem ak yonent bi kon xasida yi mooy jëmmi sëriñ bi kon ku am tawféex yi fonk xasida yi bëggal ko sa bopp nekk ca sax ca loolu mooy dëkkal sëriñ bi noonu rek la demee. ginnaaw xame ngeen ko noonu noonu rek la demee noonu rek la ko gisee te loolu rek mooy dëgg noonu rek la demee sant leen yàlla bu baax a baax njuñ bokk taalibe yépp ñu ànd ci sant leen ko yàlla sant la leen yàlla ndax yéen ñi am tawfeex jooju am yéene ji am yitte ji am bëgg gi am yitte ji ngeen defe ko ni ngeen ko defe lolu tawfiq ngeen ju rëy dong mo len ko may lam am mayoon saxaabatu rasul lañ amon ci yonent bi tawfiq ju rëy rek mo len ko mayon na ngeen xam ne yéen am ngeen tawfeex jooju ni mu leen ko waxé won rek benn jataay boo xam ne mën naa ci am bànneex bu toll ne bi am. mu ne ni ko waxee amul benn jataay boo xam ne mën na ci amee bànneex boo xam ne comme jataay bii. kon. kon. ñu ma mën a wétali. ak nu mu mën a wétalikoo. ñu mën a doon. yéen a nga ci biir. bu dee yéen dong itam. bu dee yéen dong itam. ngeen ko wétal. noonu rek la demee jërë ngeen jëf kon na ñëpp tàll seen loxo tax amiin tal waaye bëgg na ko fas ñaan bi bisimilah na ñëpp tàll seen loxo. bisimilah na ñëpp tàllal nee amin te lu waaye bëgg na ko fas si ñaan bu ngeen demee ngeen nuyoo ko mbokk taalibe fa nekk yëpp sëriñ bi sant na ñëpp gërëm na ñëpp amin buñ noppee bu kenn jóg nañ ko bàyyi ba mu jóg ba dugg ci biir ñu soog a génn saal bi amin ngeen jëf bismillah suñu mbégte nañ ko waxee woon ci suba dolli ko na ndax yaakaar naa ni am murit amul lu gën a rëy janoog Serigne Touba kon tey bu suñu borom dimbalee baaxee nu ci ci yërmandeem jiyaatu ja ban teew ci kanam Serigne Mouhamadou Mountakha ñaan suñu borom yàggal ko fi kon sant na nañu bu baax gërëm nañu sunu xel dal na sunu yaakaar gën naa dolli ko waaye nag ci ginnaaw loolu biñ ko ñaanalee sunu borom yàggal fi ak njabootam gépp te njabootam gépp mën nañu muy taalibe yëpp ndax moo jiite ñëpp e, ñu ngi nag soññee nag bu baax a baax a baax ndax li ñu xëyan defi ak lii ñu mujj a def benn liggéey la du ñaar liggéey ndax xam ngeen liggéey Sëriñ Tuubaa mënut ñàkk te kuy liggéeyal ci alxuraan moo njëkk ci lim soxla bañ ca jógee ñu dajale suñu addiyet jàng xasida indil ko Sëriñ Tuubaa xam ngeen loolu tamit mënul ñàkk ci yoonu murit kon nag dañuy xam ni ñaari pàcc yooyu mënuñu koo ñàkk di ko def jamono ju ne kon ma ngi soññ sama bop di soññ mbollem talibey yu yi yi nga xamni bokk nañ pas-pas ci liggey bi ñu ne ñu japp ci xamni bu ñu ko defé def nañ lan war bu ñu ko defut bàyyi nañ lan war di soññ ñepp ak fu way mëna nek di soñé itam ci bisu xasida bi nga xamni mom lañ jubal moy le 27 avril di xasida bi nga xamni mom lañ amal ca Espagne mu mel nak diaspora bi nekatul ñaari dekk way benn dekk la kon fu ñu ci dem rek nañ xam ni taalibe foofu lañ dëkk kon Espagne ñoo woote waaye ñun ñoo woote nooy wuy jiwaat suñu bopp kon ñu ngi sàkku di jamono jii ñu tàmbalee xool bi yi nuñ ko mën a amee ñu teel koo am te fexe ba lañ daan def ñu def nu ko raw ci fànn yëpp teew teewal kon ñu ngi koy soññee di soññi mbokk taalibe yëpp ci wàllu googu ginnaaw loolu itam ñu ngi sant bu baax a baax mboole média yi nga xam ni ànd nañu ñoom te ci liggéey bi ngir kat bu nu ñun pas liggéeyal Serigne Touba te te amuñu ñeneen ñu am pas-pas ni noonu ngir bu ëllëgee ñu koy wan ñi nga xam ni fekke wuñ ko itam liggéey bi du mat kon bu matee yaatu yéen la sant nañ leen gërëm nañ leen di ñaan li ngeen di liggéey itam yàlla na ko suñu ngeen muurloo ko sant nañ ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi tàllal loxo nag taalibe murit yëpp rawat na ñi nga xam ñoom bokkal pas-pas ci liggéey bee ñu sumb kon la dolli ko tuut tànk ñoo ko moom mu di nañ gën a góorgóorlu ci njub gën a góorgóorlu ci sàkku xam-xam ni ko sëriñ bi santaane nañu gën a góorgóorlu ci liggéeyal sëriñ Touba ndax mag dina dem gone dina dem la ca dolliku nañ fonk seen jur yi nit ki la mu am te mënu koo ñàkk ndax suñu borom moo ko jox tànnal ko fa muy juddoo na suturaal ka ko yàlla booleel kon daal ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp sëriñ maam Thierno na nga xam ne sant nañu gërëm nañu yàgg sa mbokk yi nga xam ni yéen la ñu àndal liggéey sëriñ Touba bi kon foofu la ñuy yemale kàddu yi rek di di di joxe di daje ci yeneen bis yii di ñëw yàlla na suñu Tuubaa defal tawféex asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu